sa sëriñ المؤمن قرني سفاء والدماء سوى يأتون في مسلم بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك سر وتزرع junub junub bi شرق عادتي شحبا وسل كرسي على بشارات بطني قشي شل حجة صحبة خير المصطفى سوى البصر بعد صلاة وسلام سربزر وسل بقتي للنبي ما يحب بعد سلام لك لا يلا سبي المخابئ فيك يلا يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع الملك أن يخفيك يا وجهتك اليوم يا رحمن مرتديا بما زيد في الدنيا فيا العزيز الذي أبقي بعزته إذا يخلد لي تكريم يا الله لخير ناوية خلقنا رضا بسطت juróomi junni yomb ba mu jafe sëñ Saal daal wax ci daara ji dong bu ko mokkal ma jox la ko. sëñ Tuba ku ko mos a mokkal ci wetam foofu aw fas fas maanaam bu doon lekk kat lay jox ndax valeur bi sëñ Mourou amul penc mu ñuy jàngi xasida gi te yàlla dafa sotti xéewalam ba waa penc ma yëg ne suñu borom sotti na fi gisoo di ko dal léegi dafa fees. fi ba koy feneen dama lay wax tuuti rek suñ borom dafa def ponk ak muy ponki lislaam muy juróom mu farataal ko ci jullit bi ji jëkk mooy tudd baati seede mooy tax nga doon jullit ba ca topp mooy di taxawal julli juróom mooy tax nga jullit ba mooy di weer weeru koor day tax nga def jullit ba mooy di natt asaka day tax nga def jullit ba mooy aj makka day tax nga def jullit juróom yii néewaa na ko ko mën a boolee doo yëpp man ngaa doon jullit te doo aj man ngaa doon jullit te doo noonu te asaka man ngaa doon jullit mën a woor ndax da am ngànt man ngaa mën doon ab jullit te doo mën a julli lu ci ne am na benn ci mënta ñàkk mi ashadu an laa ilaaha illallaah wa sallam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam borom Tuubaa Xaadimu Rasuul nag def yëpp mu des benn ponk mu waxee ne bu déwénee fas naa ko yéene déwén sama mu dellusee ca la ko colonage bi si ne siy jàpp sëñ bi nekk koy soñe nga xam ne jot ta dem defal ko boppam ci saa te moom waxam du tax lu mu wax dana ko def ñaan na ko yàlla borom bi nangul na ko tàggu na rasulillahi nee na ko maa ngi lay xaar mu boole maa ngi lay xaar yonent bi salaaw salaam ak ndigalul boroomam ak nisaram bëgg ko def ba noppi bi mu ko waree def tubaab bi ñëw téye ko sëñ tubaab yi mun maa ñàkk takki bagaasam préparé ab sëriñ ca tànn ñu muy àndal ba noppi xew-xew bi am mu dugg néegam dal xësit ak ik nii di ko bind ba si ci bayit wii ni fab maa ji màkka bi mu waajee ba war koo def ne rasuulaay ko feeñ ne ko boo ma tiimee jaxaram tiim tiim maanaam dagge fii paas wàcc màkkatul këram tiim sama rawlu bi rasulaay ne ko danaa dekki te warumaa dekki te bis ba ñuy dekki jotul te soo ko defee léegi ma jóg léegi adduna tukki ñëpp faatoondoo benn yoon kon may naa la nga xaar sëñ tuwaay bi mënumaa a ñëw def naa ànd ak màkk ak kaaba yi ak ak fépp fekk si la Touba Njaareem nga àcc ma delluwaat loolu kéemaan nee na de maanaam barab yi ñuy la Rasulullaay ne naa ñoom ñooy ànd doo jóg ba dee jaxaati mun naa jàdd nga dégg mu di ko wax fii rek la mbir mi leere borom Touba ni Momadou rasaxtanil xajja tayyan anta muqtadirun maa jiwaari wa sawri fii ka yàlla. sëgal dama ba sama néew mi fi desal bi def naa ko moo sëñ Tuubaa noo ko defee te jóge woo Mbàkke gi nga nekk te Mbàkke nekk fa mu nekk nga ne def nga ko noo ko defee borom Tuubaa nee na géntuma aj imagine wu nu aj yaakaaruma aj dama aj ni ñëpp di aja farata sunna yàlla mi moom suufam bi rasulullahi moom def ca màkka ñoom la gërbal yaru leen nu andil ma fii ci Tuubaa borom Tuubaa nee na ma julli sama ñaar rakka ya armal sama armal nga te tawaf kaaba gi juróom-ñaar ni ko ñëpp defe te génnuma Tuubaa yàlla si ma toor dala moo def dekkare roñ suuf si def ko tey bu fekk ma tubaab ma aj moo dil ma kaaba gi ma war ko juróom-ñaari yoon

bu ñu la laajee Safa ak Marwa bu ne juróom-ñaari yoon lañ ko def Sëriñ Tuubaa ne def naa ko foofu laa jógee dem mun naa def naa fa ñetti fan yéen fa def borom Tuubaa ne def naa ko bàyyi koo naa fa dem naa Arafa gi nga xam ne bu yàlla ne def bu def taawu Arafa aj ga def naa ko Mustalifa fa ñu fooy xeer yi Sëriñ Tuubaa ne dem naa foofa daaneel def naa ko noo ko defee mu ne géntuma ko sama jëmm saayir si moo wër kaaba gi man Ahmadul Xadim antal muxaddim yow suñu borom mi nga xam ne yaay ji jiitu ji xadim nii jiital nga ma naa fii ci àdduna ku tàkk maa la jiitu waxatan ëllëg yomal xiyaam ku ne yaakaar maa la jiitu ala kasirin du morom ku yàlla bind man ahmadul xadim sëñ Tuubaa jiitewul com fekk mel ne Asan Kan ñun ko sëñ Tuubaa la jiitu mbaa sëñ mun ñam wala imaam taala sëñ Tuubaa la jiitu daa yomb sëñ Tuubaa nee na waxatuma ak ñooñu ponkal yi mu yonent yi ponkal nga xam ne ñoo fonde ci seen kaw du moom romb ku yàlla bind lu waral àlla kasirin rasululaay képp la ci ber ku rasululaay ku ci topp sëñ Tuubaa nee na du ma sa yow yaa ngi aji des ci ginnaaw. koo xam ni da war a jiitu yomb na kon nga war a des ci ginnaaw kon. xam nga li yéeme mooy bi muy def liggéey bi ñeenti ismulaay axsam la sëñ ko ci kar ñeenti turu yàlla yooyu ñoo nga ko àdduna nga ko àllaaxira nga ko saayir nga ko baatin looy teg fi toog suuf noonu yaa awalu yaa axiru yaa saayiru yaa baatinu yéen a seen tubaab doon sikar ba suñu borom waxante moom wax ji mu wax ak man wa innaka la awalu wa innaka la awalu yàlla yaa jiitu bi fi kenn nekkul yaa fi ne defal ma tey ak ëllëg naa nekk ci bopp koo xam yaa ko sax ñooñu kat noonu lañuy wax ni wa saabixoona saabixoona ulaayka al muqarrabuun seen tubaab neen naan seen kanam ginnaaw yow laay waxal nag ma defal daraja fii ci àdduna bu kenn amul defal ma daraja te laaxira bu kenn amul sama julli gi nag ko sellal ba kenn may tabbi àjjana bu ci benn gàkka am yow mi nga xam ne lu nuy gis lu ne yow la mboolem loo xam ne mébét naa ko jox ma ko dama ànd ak sa ngërëm su bëggee siiw mbaa ko barkeel feeñal ko ci man ku ko jàgg ci kër sëñ Tuubaa yaa man keneen yow mi nga xam li kenn gisul yaa nekk ca biir loola yow laay waxal mbóot yi gaa yi sàkku nga xam ne ku ko am am lépp ku ko ñàkk amoo dara jox ma ko sarfa sikri yàlla looloo garaaw nag fu wadee sarfa sikkir yi borom Tuubaa ne bi ma sikkaree ñeenti tur yàlla yi yaa awalu yaa aaxiru yaa saayiru yaa baatinu suñu borom da ne seet ni cëpp daf jëmm sama kanam ma bëgg ma ne ko mbuut mi nga xam ni ku mos ci yow dara ca la jàpp moom laa bëgg a ko sama loxo borom bi ne ko jox naa la ko mu ne ko sama xol bi na nekk naan waaye ku yàlla bind sarfa sikri yaa xam laa ilaaha soo ca bëggee dara xol bi ngay soo ca bëggee sama xol bi la ne yaa xam alxuraan ngay jàng mbaa laa ilaaha illa mbaa salaatu ala di sikar ci kaw nga ko jàng ca bëggee jariñ sëñ Tuubaa nee na sama xol bi la ko yàlla yow mi nga xam ni ca biir biir yaa fa nekk zikri yàlla. ku doon magaat nga xam ne tur yàlla yi fi la ñuy balle. yaa wahab yaa maliki. yaa malikal mulki. sax dina jabal. yaa malikal mulki sax. yaa malikal mulki. wa sax beew yaa wax léegi. badaanu wasi. waat lex. waax lex. doona mafsadatin wala sa tax wati yaa baru yàllahu moo tax yaa malikal mulki mën a nekk yàlla yaatalal ma bu ma xatalal ci dara taga boyal ma mbaa yàlla ma ku ma topp bu topp sama kenn taga goreel ma te goreel sama waa kër bu topp kenn bu ma jublu fu yàq nekk bu yàq jublu fu ma nekk yaa malikal mulki yaa maalikal mulki wasatatuna jawal foo dégg président mbaa chef d'état mbaa ministre mbaa roi yow yaay borom yaa maalikal mulki wasatatuna jawal naa mel ci sa nguur gi ne yëkku kuy wu nu yeew yi bàyyi ko ci biir gétt muy taxawaalu dara waru ko yaa maalikal mulki yow yàlla mi nga xam ne yaay buuru buur yi tax ci pays yi jabaroon fu ma neex naa ko def yow borom màgg gi yow borom tiraanga yi maa ngi lay ñaan nga may ma li gën ci àdduna teg ko sama loxo nagat àllaaxira mooy àjjana teg ko sama loxo yëpp subhaana rabbika sax laa bëggoon waxtaane waaye foofu daa neex dama bëgg a xool tuuti rek nii li ay naasi mi naa fi gis ko rabbi sama yasikoon sabaxtu li lay nax si bi gisoo ko xool sëñ ni mu def araf waaw bi ko imaam di jàng man man foofu laa kaawutee siin gi xam nga ñu ne wax ne subhaana rabbika tudd naa seetlu sa borom rabbi seen borom tedd nga ji amaay si ëpp na lu ko defee daal di koy suri rek jàll sëñ Tuubaa du ma du waxee noonu man jox ma moo par moo gëm nañ mu jël siin ga ne sadaxtu mi aji màgg te ko am njariñ àdduna ak àllaaxira moo la ko may siin gi rek la. arrêté ñetti tur yàlla rabbi barru rahim sëñ bi xoolal loolu. si ak rafet ñeenti tur ci benn benn siin loolu boo ko dóoree ci yàlla dafay xaj. ah yeneen baag yi ci sant gi may sant yàlla moom laa jaare ba julli ci yonent bi ci moom ala muhammadin wa man xad aslama ma gën a mee julli ci moom julli ci yonent bi da suñu borom boole lépp moom rasulaay di subhaana gi mu ni sant naa yàlla mi borom mbindéef yi tey borom mag gi naa ngi julli ci mi nga xam ne fu mu fekk aw metti bu tegee loxo metti lu daal liif bu ndaw nga nekk ca subhaana ga moom lay waxee nii ak ah, yàlla teral na képp kuy jur ak ku ko jur ma ne kuñ jur ku ne mbaa ñu jur la boo bëggee teraanga fappa rasulaay alayhi salaatu noonu subhaana gi moom da lay waxee ni yàlla naa ngi sàkk nga musal nga musal koo xamante ni yaakaar naa. boole rajawtu min rabbil rahimi muxlim muy bardi ak rahim ak muxni rajawtu min rabbi min bardi rahimin muxni mu jël raaw subhaana rabbika raa gi mu ne rajawtu maa ngi yaakaar foo ko yaakaar min bardi ci aju baax ji ak rahimi ak yërëm ak muxni ak aju womal ji foofu laa doon xool ni muy def tur yàlla yi waaw ñu mboolem télé yi nag ñëpp ñëw nañ Nasrou TV waa Dunia euh, nan at Thiès ak Thiès Info euh, mboolem ñoom ñëpp ñu leen gërëm leen sant leen ñaan leen taw féex tey nag mooy leetu xadar moo tax mboolem mi tàmbalee ñëw Sëriñ Muxtaar ñu ngi lay gërëm sëñ Moodu ak mboolem kilifa yi teew yàlla yàlla defal ñëpp jàmm taw feex sutura barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulah